Ali Mane, pour 5 minutes, Ahmed Aïdara, le suivant. Merci, Président. Permettez-moi tout d'abord de saluer Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le ministre de l'Économie et du Plan, le directeur général du budget, le directeur général du GD, Monsieur le directeur général de la coopération, euh, et tous les fonctionnaires qui vous accompagnent et mon ami Yassé. Monsieur le ministre, permettez-moi d'abord de parler de cette responsabilité de notre dette. La dette est devenue une préoccupation mondiale. Au Sénégal, la dette nous a permis d'augmenter nos investissements, contrairement aux idées utopistes, irresponsables, dangereuses et inutiles pour le pays. Monsieur le ministre des Finances, je sais que cette dette est remboursée d'une manière responsable, avec la rationalisation des dépenses publiques. Vous l'avez dit en commission, que nos dépenses publiques en 2012 représentaient près de 12% de notre PIB. Aujourd'hui, on est à 7%. Merci et félicitations pour ça. Aujourd'hui, on voit cette rationalisation sur les téléphones, sur les voyages, sur les voitures, mais autant une bonne croissance de notre économie. Durant la Covid, messieurs les ministres, vous qui représentez le gouvernement, le président Macky Sall a beaucoup fait et à soutenir les entreprises en général, mais surtout les sociétés publiques et les privé nationales. C'est le lieu ici de remercier le président de la République. Ce soutien a permis la non-faillite des entreprises, avec beaucoup de prêts garantis par l'État, par le crédit tourisme, le crédit du transport aérien, sans oublier le fonds Cette politique de résilience, saluée par tout le monde, à une bonne politique de relance qui a permis la reprise de notre croissance. Monsieur les ministres dama bëgg am na ko fi taxaw léegi di wax affaire consulat bala ñu wax ñu ubbi consulat yi nañ wax ñu taal consulat yi ñi menacer les fonctionnaires ñuy ay fonctionnaires sénégalais de représenter la représentation du peuple ñu finance nañu wax ci loolu bala ñuy wax ubbi nañu wax ñooñu ñu wër leen fu ñu mën nous avons wër leen ak commanditaires yi leen tëj leen bala ñuy consulat benen bi monsieur le ministre am ñu wax que né président de la république suy dem yóbbuwaale PSE président de la république bala muy dem PSE bi moom dafa am ñum ko teugal mu melni premier ministre melni ministre des finances melni ni Doudou Ka mi toog fii ñoo ñooy continuer PSE bi ba 2035, Inch'Allah. té cinq PSE bi PSE bi motax suñ ko dinañ Ila Touba 400 et quelques milliards dinañ yóbbuwaale fi ci réew mi deux villages ñoo amone courant léegi ñu ngi ci plus de 3500 villages fii président Macky Sall 33 kilomètres d'autoroute la fi fekk yokk na ko à 350 kilomètres loolu mooy PSE PSE moo tax ñuy tabax hôpital Saint-Louis moo tax ñuy tapital hôpital hôpital Tivaouane te nag lay am Rufisque moom maa ngi koy wax léegi Seydou Diouf depuis Abdou Diouf moom Rufisque kenn defu fa dara parce que maire yëpp par défaut lañ leen élire balay état di def na fa maire def dara amul benn maire bu fa ñëw compris maire bi doon wax fii lu lu tabax lu fa baax ay tali depuis Abdou Diouf la loolu mooy dëgg beneen bi beneen bi li bëgg a ci mbiru suñu économie suñu économie sénégalais dañ croissance à deux chiffres mais lépp lu dal ay nit am complot ne yàq yàq yàq suñu économie yàq entreprise yi fi nekk ba suñu taux boobu tey ñuy wax à de deux chiffres mais inshallah 2024 comme niko ministre des finances waxee ak ministre de l'Économie, dinañ yegg ci à deux chiffres li am nak Sénégal li fi am nañ tàccu liko président Macky Sall mu ci di liggéey mu ngi jaar jaar gis nit ñi ni nit ñi ne ko mu bëgg ñu mu boole le président Amadou Ba inshallah 2024 mu gagné continuer PSC e bi Sénégal nekk ci route de l'émergence. émergence rek am solo leneen li wax dañuy léeg dong amul kenn ku fi taxaw ne su ngeen jëlee Sénégal nii ngeen koy def critique rek ngeen def su ngeen 2021 2022 li ngeen doon wax yëpp moo yem merci président. merci cher collègue. la parole est à notre collègue Ahmed Aïdara pour trois minutes. Sira Ndiaye la suivante.